A'udzu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Muhammadin wa الله على محمد ورد عن خدمه mbokki mbokki wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, ni ngeen ko xamé rek ci plateau yi nga xamanteni ñong ko doon organiser fi ci goudi khassida gi nga xamanteni mi amé fi ci euh, France ci 5e édition bi te Serigne Satou mom Serigne Soy bu joxe ci ndigal ci daaira bi di Batul Marakhib ñu ci ak ñom. Euh, structure bi di Touba Monde TV am nañ mbégte tey dalal yenn ci bànqaas yi nga xamante ni ñu ngay yëngu ca Touba te seenu tur di Muxaddamatul Xidma tey ji ñu toog ak lenn ci jëwriñ yi di Serigne Assane Diop euh, wax dëgg yàlla muy sunu mbégte ndax euh, Muxaddamatul na moom kenn ku ne dégg naw turam kenn ku ne tam gis na réalisation yu bari yi muy def dinañ ci dikk ci biir waxtaan kon ni ñuy def rek bañ a guddal jox Serigne Assane mu nuyoog mbokki taalibe yi mbokki jullit yi bu ko defee ñu wéyal tuuti ci waxtaan yi ngir mën a leeral yenn ci bànqaas yooyu kon sëñ Assane tafadal auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim in ibaadi laysa lak alayhim sultaan walaaw yaxsimuka mina naas yaa allah barke borom Tuubaa wax fir liman banaw bina ahaara fii wax fir man amarum bi jami eh, asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, sëñ Abdoulahi ñoo ngi leen di siyaare Euh, tey jiital ci siyaar bi ak nuyu bi sëriñ Muntaxa sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Muntaxa Mbacké euh, yàlla na fi yàgg te ànd ak ko euh, di am mbégte lool ci bis bi nga xam ne day màggalu xasida gi nga xam ne ñu koy def fii ci Paris te tey ji mu boo ñëwee ci biir jataay bi boo nattee sa bët continent yi yëpp daanaka mën naa ne ci diaspora bi ñu bari teew nañ fi ngir liggéey bi sëñ Tuubaa bi ñu def ci xasida yi euh, kon noo ngi siyaare ñëpp rek di leen siyaare tamit jëmm ju baax ji nga xam ne sëriñ Tuubaa Cheikh Sidil Muxtaar euh, mu nga xam ne moo wàcc bu yàggut sunu borom yokk ay leeram taas na ci barkeem euh, di ñaanal ki fi nekk nag mu Cheikh Mamadou Muntaxa di jëwriñ ci liggéey bi nga xam ne moo mas a doon suñu jëwriñ yan bii suñu borom yofal ko Euh, di leen siyaare nag yéen waa télévision Touba Monde bi ndax jataay bi moom euh, jumaay Touba miin na télévision Touba Monde bi min na tamit jataay Touba télévision Touba Monde bi ak rajo bi ndax lii di liggéey bi euh, mën naa ne bokk na ci ñi nga xam ñoo ko yëkkati ci wàllu di ko yaatal ci àdduna bi yëpp kon seen taxawaay rafetlu nañ ko di siyaare sëñ Ibrahima Ndiaye ak sëñ Modou mbay ak ñi ci biir daara ji yëpp Euh, di ziare suñu jawriñ ji nga xam ne moom lañ fekk si tey muy sëriñ Modou sàmbu Samb euh, nekk fii ci Touba Paris bi ñëwee tam moo ñu dalal ngir ñu ñëwoon ci bisub màggal gi rek siyaare si waa kay jërëjëf. ak sa ak sa jërëjëf sëñ kon ñu jox rek sëriñ Modou Kara nga xamante ni moo jëmmal Moukhaddamatoul Khidma fii ci Paris. kon sëñ Modou Kara nga nuyoo mbokki taalibe yi bu ko defee ñu dugg tuuti ci waxtaan yi ci loo xamante ne xëy na yéwénal la rek ak yaatal liggéeyu Moukhaddamatoul Khidma ci biir jumaay Touba ak Touba. salaamaaleykum sëriñ Abdoulaye ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax ak di leen bëggee comme noonu ngeen ko waxee rek moom sunum nuyoo dañ koy sof ci nuyoob sëñ Assane rek ndax moom yéene yi benn la. waaw ba tax na ñu ngi dalal mbokk taalibe yëpp yi jóge ci fépp ci Europe rek ñëw teew ci bisub xaside yi. ak di leen bëgge bu baax a baax ak di am mbégte lool ci seen taxawaay ak di ziar ñëpp di di ñaanal ki fi nekkal sëñ Touba muy sëriñ Mountakha suñu borom may ko gudd fan ak wér te li mu am naan yéene liggéeyal sëñ Touba yëpp suñu borom def nu ànd koog moom te mu yàgg fi lool te wér ci barke sëñ Touba kon xam naa foofu la ñuy taxawal nuyoo bi rek dañ doon saf sof ci nuyoo bi sëñ Assane rek. jërëjëf kon ñu njëkk ci sëñ Assane mii jëwriñ ji sëñ asan gis nañ ni euh, yàlla mi dara tawul tey jii euh, sëriñ Muntaxa la ñu andil muy jëwriñu yoon wépp euh, murit yëpp nangul ko lu jiitu sax muy nekk xalifa bu Cheikhul Khadim gis nañ itam maanaam doon na jëwriñ bu yàgg sax ci Muxaddamaatul Xidma ba daan ci yëkkati kaddu yu yéeme kaddu yu positif yoo xamante ne ni liggéey bu rëy la boo xam ne daanaka moom ngeen koy defal bi mu toogee feddliwaat na loolu ni yéen la àndal liggéey bi te daanaka liggéey boobu dañ ko ci wuutu kàddu googu jug nga xam ni euh, fedd li la maanaam nan la duggee ci seenu liggéey ndax euh, yokkute la ci doon wala euh, yokku Pastef lay doon wala mbubb mu yees moom leen solo la moo xam ne daa bëgg ngeen liggéey ci beneen anam. waaw xam nga waaw ginnaaw bi ñu siyaare ba noppi dañuy dugal nag léegi yóbbante akum nuyoo akum siyaar waa daayira bi te njiital sëriñ Afia bu so imaam. Euh, sëriñ Afia mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira bi euh, mu dajale nuyooy ña ca biir jumaa ja ñépp diggante buubkat yaag imaam yaag noddukat ya ak mbooleem koo xam ne rek yaa ngi ci xitma yëkkati seeni nuyoo ak seeni cant ak seeni ngërëm teg ko ci sama loxo euh, ngir ma jottali ko mbooleem ñiñ fi fekk ñëpp ñooñu nag dañ cee jiital ñi nga xam ne ñoo doon taxawu liggéey bi fii ci France moom ñëpp teewut waaye sëñ Modou Kara moo leen fi teewal eh, ci liggéey bu rëy boo xam ne liggéeyal na ko sëñ Touba ndax eh, bi daayira bi taxawee rek ñu am ay yitte yoo xam mënta ñàkk ci jumaa ja ndax jumaa ji day bërëb boo xam ne eh, bâtiment bu toll ne mënta ñàkk entretien ñu di ko setal di ko taxaw di ko taaral ci wet yëpp te jumtukaay yooyee am na ci yoo xam amu fa am jumtukaay yoo xam ne tamit bërëb bi mënu koo ñàkk moo tax euh, biñ ci tollee ci soxla maanaam machine yu koy fomp ci at moomu diggante ay 2012 la jëm kaw euh, lu toll ci ñaari machine ñëw na fa yoo xam ne Modou Kara ñoom ñi ñoo ko toppatoo daanaka boo xoolee bit sa ba eggoon na ci 15000 euros yoo xam ne tey mën naa xëy fomp daanaka biir jumaa ji lépp fii lañ ko liggéeyee euh, at ma ca toppaat. ñu liggéeyaat margu boobu nga xam ne tey jii ma ngi ca jumaa ja nga xam ne mooy foofu ñuy indi ñi wàcc liggéey waa Toscana defaroon ko biñ demee ba jumtukaay ràpp ñu war ko yeesalaat ñoom ñii ñoo ko taxaw ba dugg indiwaat fukki trois ak juróom nga xam ne daanaka war naa egg juróom-ñeenti million baa mu jege ko baa mu weesu ko sax bañ ca jógee tamit bu yàggutoo yóbbu nañ fa oto boo xam ne maanaam oto autovidage la boo xam ne euh, foos boobu nga gis noonu euh, daayira bi ñoo ko daan manq ndax daayira bi moo yor léppi jumaa ji euh, sëriñ Saaliwu tamit bi margo bi noppee la jël caabi yi teg ko ci seen loxo ñu di ko saytu nag ñoom ba tey jii ñoom ñi ñoo fàgg oto ba indi ko ba léegi oto boobu ay bis ju ne mi ngi koy manq léeg-léeg mu dugg résidence Seexul Xadim sax manq manq foos ya te loolu waa pare gi ñoo ko liggéey cant loolu nag ak ngërëm loolu moom laa fi indi nag ngir jaajëfal leen ak teew ci màggalu sëñ Tuubaa gii nga xam màggalu xasida la ngir tamit gën a fàttaliwaat liggéey bi gën cee soññewaat ngir ñu jàppaat ci waaw. sëñ sëñ sëñ Assane euh, màggalu Paris nga tudd ñun ñëpp ñu teew ci nii ngir euh, jaamu yàlla ak dundal xasida Cheikhul Xadim yi gis nañ ni. dafa mel ni lu mel ni ay panneaux yu wane Moukhaddamatoul Khidma wala ay panneaux publicitaires wala ay jumtukaay lu mel ni ndax gis nañ fi ay structures yoo xam ne li ngi joxe léeg-léeg ay xëti xëti xëti kayit di ci wane seen bopp ak yooyu te dafa mel ni loolu xaw naa lompoñ tuuti fii maanaam ci mbirum organisation la wala daa fa am gàllankoor. waaw laaj nga lu am solo ndax Moukhaddamatoul Khidma day daayira boo xam dafa tënku ci ndigal du benn réew boo xam da nga dugg ci benn wooteb Serigne Touba boo xam ca saal ba. dañ fa gis benn panom muxadamaatul xidma amuf wala benn rideau bu mandat bu mandargalee muxadamaatul xidma ndax dañ koo sañut ndax ñoom ci ndigal la ñuy dox ndax liggéey bi dox na ay at yu bari yoo xam ne mën naa ne 89 ba 2012 ci juróom-benn dëkk la yemoon ci Espagne di siyaare Serigne Mamour Mbacke ibnu Cheikh Mamadou murtada yàlla na fi yàgg ambassadeurul islam liggéeyu muxaddamaati xidma su génnee ci àdduna bi bañ di ko gis sëñ Maamoor ci la ko moo ko moo ko génne moo ko wane ndax moo laajoon daayira bi sëriñ Afia Bousso boole ko Abdoul Ahad Bousso ak man miit ma fekk ko Italie ci la wane liggéey bi wax ne na ci ñëpp mën jàpp coobare woo ko jox ñu ci ndigal ndigal lam ñu ci joxoon mooy ñu yóbbu ko ci daayira Seexul Xadim yi ko daayira bi nga xam bu ñu leen ko joxee rek ñun noppi nañ ci ñoom nag ñooy seet nuñ cay coobare woo ba mën a ànd ci liggéey bi noonu noonu la ko sëñ Mamour doxale mu am solo lool ba tey yii yii fi feeñ yëpp ci loolu la feeñee dama laa leeral waa France liñ def waaye Espagne def nañ lu toll noonu wut na ay machines yu bari yóbbu ko ci jumaa ji ba noppi ànd ak ñoom nag ci waxtu wu nekk jëpp yitte yoo xam ne ju ñëw ci jumaa ji la rek ndax ñoom du ñu liggéey annuellement dañoo ànd ak daayira bi waa boo demee Touba Sine bu yàggutoo gis nga parasol ya fa nekk rideau yi ker gu bari dolliku na fa te ñoo ko jënd indi ko nga xam ne boo xoolee Brésil ak Argentine ñoo ci mujj a dugg ñooñu it ñu ngi jàpp ci ndogu yi ak ci wàccaayu màggal gi waaw nga dem ci Allemagne Argentine Portugal dem Turquie Grèce ba Italie Touba Veneto bu yàggut jën nañ benn machine boo xam ne mooy fóot tàpp yi egg na ci quarante mille euros waaw muy taxawaay yoo xam ne daal bu ñu du du réew yëpp ci jàpp nag lu toll ci juróom-ñeenti réew ba Amérique sax dañuy barkeelu ci ndogu yi waaw ko defee bu ma ñëwee ci Seex Mamadu Muntaxa nag damay ñaan mu yàgg fi ndax Seex Muntaxa daa am fu mu féete woon jumaa ji da daan wax ne jumaa ji ñoo war a doon fonctionnaire yi ña cay liggéey waaw ndax ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy keno yi sëñ Muntaxa loolu daan wax da daan wax it ñii ñooy ñi nga xam ñoo tawu liggéey bi egg na ci di wax naan ñii fu sëriñ bi la rek waaye du lu yomb eggoon na ci di wax tamit di wax naan lu ñëpp war a xam la ñàkk xam ñàkk dogu waaye liggéey bu toll nii yomboon na mbooloo mu mbooloo mu mu takku ànd yor matériel bi ba noppi itam di amal di yoraale ñay amal matériel bi mooy ñay ñay yor liggéey ba di ca liggéey ba. ci yéeneem ju réy rek Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg euh, saxaloon na ci jumaa ji loo xam ne kenn mënu wax nu mu toll di ko jox imaam yi ak noddukat yi moom Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg doon suñ jëwriñ nam doon jëwriñu liggéey bi itam dégg nga ni mu ko waxe sañ aaf yi barki démb nee na ko liggéey bii maag yéen la woon waaye danaa gën a dëgëralaat sama laxasaay ci liggéey bi waaw jeex ci tàkk bu ñu mësaan indi bagaas daaru minam la ñuy njëkkee kër ga batterie sax bu ñu ko yóbbu ci jumaa ji ci kër sëñ mu la ñuy njëkkee ba mu tijji mu xool ko léeg-léeg bagage ñu mu ne maa ko yóbbu ca jumaa ja ànd ak ñun ba ca jumaa ja ñu wàcce ko mu ñaan dellu këram waaw waaw loolu nag eh, moo tax nag ñu bëgg ndigal lim ñu joxoon ñu ciy def benn soññee boo xam ne bëgg nañ daayira bi daal xam gi yaatu léegi ci loolu ci loolu tey jii xam nga wax nga lu mel ni matériel bi ci jumaa ji waaye dafa doyoon sëkk rek ndogu yi ngeen di organiser ci jumaa ji eh, loolu maanaam nu muy doxee ndogu ndogu loolu ndax bari nañ ñu koy gis ñun ndogu yi ni organiser ci biir jumaa ji xamuñu nu muy doxee maanaam luy source beeg ak nan lañ ko organiser ak tey jii ku ci bëggoon a tàbbi nooy def. waa ndogu yi nag eh, comme ni moo koy leeralee ku ci bëggoon a tàbbi maanaam lépp rek dafa dellu siwaat ci ndigal la. ndax ci biñ ko bi bi bi bi bi bi muy taxaw ci sëñ Saaliwu di ci joxe ndigal li ay bis la woon mujj ñaari ay bis maanaam léegi mujj na mu mat weer fi toll ñoo ngi ci budget 40 millions 40 millions te buñ xoolee ren ji juróom benn pays jàpp nañ ci ndogu yi te bu nee diaspora bi aduna bepp dañuy japp ni diaspora bepp rek ño japp ci liggéey ba duggal ci sen loxo waye nak juróom benn rew yo xamni ci biir europe mën naa tudd seen tur ak touba espagne ci la bok ba amerique portugal espagne angleterre allemagne turquie grèce ah, euh brésil ñuy japp nañ ci liggéey bi nga xamni ne ñu bu bu bu ndigal li egsee rek ba ki fi nekkal sëñ tubaa joxe ci ndigal jiital ci jëfam boobaa sëñ bu Bousso day daal dëggante ak ñun ñu ngi xam tam ñooy def soññee yi bu ñuy soñee nag ñun dañuy lancer appel woo àdduna bépp murit yëpp fu dayre nekk rek ndigal egsi na ci yow euh, nga xam ne ñaari mbir rek lañuy lañ lañ lañ daan woo appel ñun ci nit ñi ci wàllu liggéey bi jëm ci jumaa ji muy wàccaayu màggal ak euh, koor gi ba loolu bëgg nañ ñëpp xam ko ndax daayira bi euh, li nga wax noonu moo ci feeñ fi mu toll bis bii tey ni mu rëyee Touba Paris jii tey jii réew mépp daje fi boo defee visite fii foofu dem gis nga fi maanaam bandera bu rëy bu affiché kuréel sàngam ñoo yor liggéey sàngam gisoo ko fi gisoo fi muxadamatul xidma waaw gisoo ko fi waaw ndax ñoom ni ñuy doxe mooy biñ fi ñëwee mu dugg fi rek dañ ko teg ci loxol jëwriñu sëñ Tuubaa yi loolu nag jëwriñu sëñ Tuubaa nag am nañ moom ndigalul moom yaatal ko ñoom it wut seen i bandara wala ñu yaatal ko nuñ ko mën a publier daayira bi itam yable fi ñu ñëw sëmbal ko ñu jox leen kàddu ci liggéey bi ñu soññee ci leeral fi liggéey bi toll ak loolu loolu tamit loolu liggéeyu ñi. xam nga xam ci ndogo yi. waaw xéwal yi mën a indi yëpp. Hmm. wutalu leen ko lu mel ni ay cartes yi comme nii comme structure ma la ma nañ jox exemple ci structure yi nii doxee ñenn ñi dañuy yëkkati benn liggéey wutal ko ay carte barkeelu ñenn ñi wutal ko ay carte de membre ñenn ñi wutal ko ay ay sous yoo xamante ni kenn ku nekk ba ci li mujj tey di muy muy Touba ci kanam gis nga ni daayira bu ne yóbbu nañ fa lu mel ni ay carte am na ñu gis loolu te man dafa mel ni carte mu xadumaatul xidma buy jëmmal liggéey boobu maanaam dafa mel ni siiwut ngir nit mën a tabbi ci liggéey bi ndax liggéey bi lay mel noonu bu sell noonu nga war ko yéene jullit ñëpp tam te structure bi doo gis lu ko représenté tam loolu ndax du des tuuti ab maanaam ci doxin. waaw daayira bi moom organise na yoo yooyu yooyu yooyu yooyu kuréel yooyu am yëpp dayre bi am na ko daayira bi am na carte membre boo gisee carte membre bi nga xam ne moom la daayira bi yor maanaa ña tuubaa ak ña dëkk ba ñoom ñoo njëkk adhéré wu ci daayira bi di amal liggéey bi ci seen ñaq fi mu toll lu ñëw. seen jëfa jitu nyom ñoom Wow. waaw euh, bi ci desaat mooy ci wàllu publier bi mooy bi ndigal li jibee rek ki yor kàddug sëñ Tuubaa gi nekk bitim réew joxe ca ndigal loolu moom dafa daj fépp hmm? yaa ngi dégg léegi bu ci wàllu carte bi ñun am nañ carte yoo xam carte yi bolog yoo mi ngi ak man fii mën naa la euh, biñ ko carte bi ñaari euro lañ ko wecc ko benn bi 5 ngir bëgg comme ndigal li jóg na rek dootuñ ca topp nag di wër nag ndax ndigal tam bu jógee ki kàdd gi joxe ndigal kon ka ca am yëg-yëg bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa ci liggéey boo xam ne liggéey yëpp bari na waaye bii moom da ko daa lu mu ci da ko ber ndax loo xam ne maraaka yi laaj nan ko jinne yi laaj mu dencal nu ko ngir yéenanu toyaa ba jeg pay gi ngërëm li ba ci bii rek la wax wax ju waxam ju rëy jooj nee na nee na bii liggéey ah ku ñëw na leen ci fekk ku dem na leen ci bàyyi ci bii liggéey képp la wax ne képp ku ci feeñ da nga feeñ te ku ci nëbbu dootoo feeñ ba tax mun Muntaxa dañoo wax yéen nekk leen ci rek ku ci nekk ngeen nekk ci ku ci nekkul ngeen nekk ci loolu sëñ taxaa egg na ci duñu ko wax waaw moo tax nag léegi loolu dañoo bëgg nag léegi àdduna bi yëpp ñu ubbeeku ci muxaddamaatul xidma moom dafa tàllal loxo ñëpp ndax ñay amal liggéey ba mbooloo mu bari ñoo fa nekk ñoo xam ne li sañ mun Muntaxa waxoon yëg nañ ne ñun danañ ko egg danañ ko am aggugun fa nag mooy mën a matal matériel bi ba mën a ba noppi mën a euh, yor loo xam ne dafay des ba mën a am fu mu féete ña fa nekk di liggéey loolu nag eggagun ci moo tax ñu ñuy soññee bëgg ginnaaw jot na ndigal ci sëriñ bi ki yor kàddug sëriñ bi ci wàll biti biti biti gi liggéey bi joxe ci ndigal ne nañ ko teg ci loxol daayira sëñ Tuubaa yi loola daayira Muxaddamaatul ma def na ko kon ñoom liñ ci bëgg rek mooy tàllal loxo képp koo xam ne rek da ngaa yor liggéey bi sëñ Tuubaa nga seet noo ci jàppe waaw jàpp ci matériel bi jàpp ci la nga xam ne moom la ñuy def muy wàllu ndogu yi ak wàccaayu màggal waaw loolu daal bokk na ci li nga xam ne ñoo ngi ciy tàll loxo ñëpp réew yëpp nag fi mu toll li nga wax ni moo ñu dal ci Afrique réew yi Afrique yi fi mu toll nii fu ñuy defee appel dañ ko dañ ko ciy dugalaale am na ci réew yi yëgul na sax muxaddamaatul xidma bi ndax euh, maanaam euh, li ñuy wax naan communication bi moo jaatu moo tasaaroo du benn dayre bu saxal sax lu muy jox ay imam wala ay kat wala ay daire waaw xam nga liñ wax c'est une première ci ci Sénégal ndax dafa bari limay wax leg leg yu suux yu soxé yo xamni nit ki lamay lay defal nga xamni dafa am fardu kifaya ak fardu ay ni la nga xamanteni mom dal koy defal mu wacc la te lu ci bari bo xolé ci yenn structure yi duñ leen wutal ak payor ndax dañ nan day liggéeyal señ bi rek leg leg dana soxé lu bari ndax liguel sëñ bi du tee mu amuk payor gumi yobu kërëm ndax daa yor njaboot xam nga loolu sëñ Muntaxa xam nako ba gis nga lim daan genn par wèr digënté jumaay ndiarém jumaay Touba jumaay Poroxaan ak ak daari kamili ba mujjoon am ñuko ko sañaxal sax bëgg na tuddu chiffre bi ngir nit ñi mën ci ndaway yag def kon ndax du ni maanaam euh, profito ci li nga xamni fi mom bu né Touba Monde bi koy déglu ñu mëna wut structure bo xamni ku déggati mu xaddumaat xidma wala mu am yéeneen ni xam ni jumaa ji am na lu ci war mu xam directement fa mu jëm bu ko defee loolu yéen dana yombal seen liggéey. waa xam nga même fii nii sax tey bi ma ñëwee nii tey jii ñoom yëg nañ ne mu xadamaatul xidma ñëw na waaye ñëwuñu ngir ne dañoo ñëw indi ay kaat dugg ci mboolem wecc koy am ay weccat dellu déedéet danoo ñëw ci bis bi muy bisu màggal gi ñu dalal nu nag ñu fekk fi suñuy jawri ñu ciy liggéey liggéey bu rëy boo xam ne ni ko sëñ bi bëggee lañ ko liggéeyee mooy waa France yi waa Paris yi sëñ Modou Kara mi toog ñoom bi ñu déggee ndigal li rek dañ ko gàttandu li sëñ Muntaxa di wax liggéeyee ko ni ko sañ bi bëggee xam ne jumaa ja soxla na nangam ñu jënd ko xam ne soxla na lii ak lii ñu jënd ko noonu lañ ko liggéeyee waaye nag loola lañ gën a soxla ci daayira yëpp ndax fi mu toll nii ñooñu nga wax te ñu nekk ci jumaa ja ñooñu sëñ Tuubaa mooy seen soldu ñooñu sëñ Afee day wax ne ñun dencunu lenn loo xam ne dañ naan am na benn fond bu ne ci kees gi tey ji fo kees kees ga fond boo tijjoon ko par ba amul luñ fay denc muy fanaan jëm suba lu egsi rek dañ koy daal di wax siiwal ko yenn ci maanaam membre adhéré yi bokk ci dayri bi ñoo njëkk a seen jëba ñoom ñoo ñëwee tey it lu ma téeméer ni dafay xëy koor gi te ñooñu kuy jóge da ngay lijjanti looy bàyyi sa kër imaam yii ak noddkat yeeg daare kaam mosoo gis benn imaam wala ku yeewoo ci jumaa kuy taxaw ci kenn di la wax ne am naa genn rafle ndax ñooy taaru yoon wi. Ah, waaw nag. waaw looñu daa war nag par exemple ñun ñii di taalibe nga xam ne noonu la nekkal foofu. waaw sëñ ñu jàppale leen bu wér-wér nag. loolu nag lañu bëgg léegi nit ñi ñëpp xam ko dañoo bëgg ñu xam ne jot nañ ndigal am nañ ndigal loo xam ne daa bàyyi ko ci sëriñ bi ngir maanaam ñu xam ne daayira bi dafa am liggéey bu mu yor moo yor setuk jumaa ji. ba noppi lay yéeney daayira bi mooy fexe ba maanaam am dooley mën a maanaam yor ña ca biir jumaa ja ndax loolu mun Mountakha moo ci nekk mun Mountakha moo ci nekk nee nañu maag yéen la woon ba mu ci nekkee ak ñu nit ba tey ñuy jël ci moom digal dañoo bëgg nag loolee ñun ñu wàcce ko ci duñ ko sox du ko nangu ndax neen daa takk laxasaay gu bees waaye dañoo bëgg nag léegi adduna bi ñu ubbeeku ci muxadamatul xidma daayira bi ñu xam ne ab piil sax duñ ko dem ci borom jamono di ko laaj ci sëñ Saliou ba léegi daayira Muxaddamatul Xidma mus ta soxla ab pile wala prise ne nañ dem ci ki fi nekkal sëñ Touba lépp ñoo koy def ñooy setal ñooy toppatoo ndogu yi am nañ ay xeeti sax liñ naan ndimbal yeneen yu ñuy defaat ci biir jumaa ji bu yàggul rek de gis nga koor gi indi nañ fa ay médecin yoo xam ne dañuy faj ñi ci biir jumaa ji te loolu buñ ko buñ leen fajee ba jox leen ay garab te ñenn ñi bokk ci daayira bi sax duñ faju muy muy personnel boobuy liggéey waaw te ñii ma lay wax nii muy ci ci jumaa ji bu bu dee ta bu dee bu dee taw dañuy ñëw bu dee sedd dañuy ñëw mu tàng dañuy ñëw buñ yorul ay warukaay sax dañuy dox ñëw fi mu toll benn oto moo fa nekk boo xam ne euh, bi sëñ di feeña liggéey bi la ko wutaale yóbbaale ko muy yu ndaay boobu fa nekk neuf place moo yóbbuwaa daare kaamil ñuy xëy di jàngi gont jàng si ak ñenn ci noddukat yi ñu jóge foofu tey ji li doon suñu yéene mooy ñun am ay oto yoo xam personne personne bi ci biir jumaa ji dañ koy liggéey dañ dañ koy dañ koy am di ci liggéey ndax ñoo nekk bàq ya hmm? ñii nga bàq ya ba noppi ñoo yor armeel yi yor jumaa ji waaw nga xam ne fi ñu leen war a féete daal euh, li Seex Muntaxa di wax moom dal nañu ci ñàkk xam hmm, wala ñàkk yëg loolu dal nanu ci liggéey bi am na ñoo xam ne dañoo dégg turu daayira Muxaddamaatul Xidma rek jàpp ne daayira Muxaddamaatul Xidma moom am na ñoo xam sax dañuy egg ci naan ñoom duñ jeexal. am na ci ñoo xam ne dañ naan Muxaddamaatul Xidma léegi li mu denc ah sëñ Assane dootu leen jeexal yéen yow miy coordonné Europe. te it màggal gi weesu rek duñ ko xoolee ñetti réew ñoo def participation yi Angleterre ñoo yónnee ah Argentine Espagne te buñ ne bi sëñ Afé di wax ci turu diaspora bi la wax rek taxawaayu diaspora bi. léegi ku dégg loolu nag dégg na rek léegi Europe yëpp a ñoo ñoo jàppoon ci liggéey bi bu ko defee bu bu màgg bu koor gi ñëwee ñooñee nga xam ne ñëwul noonu dana ñëw ci koor ga participer ca juróom-benn réew juróom-ñaar waaw. baax na baax na sëñ kon ma ma dalal sëñ sëñ Modou Kara sëñ Modou Kara yow mu mel ni yaay jëwriñu uh, Muxaddamatul Xidma fii ci uh, Paris ci France laay wax sax uh, yéen léegi sëñ Assane dégg nga li wax. mu mel ni communication am na ci solo kon yow tey jii nga jàkkaarloog sa mbokki eh, français yi nga jéggal ma ci baat bi maanaam ñi ñi nekk ci goxub France yow nan nga leen di mobiliser ban dugg ci liggéey bi nga xam ne ni biir na nañu li moom lu sell la ndax ni ma ko waxee jumaa ji jinne yi feeñu woon nañ ko ni ko jox ñu ko mu gàntal leen kazalika malaayka yi defe ko noonu mu gàntal leen ndax ne leen dama am ay taalib ak njaboot kon nooy mën a wooyee ñi nga xam ne ñi ngi fii rawatina ci diaspora bi ban mën a tàbbi ci liggéey boobu nga xam ni biir na nit moom ku ko def liggéeyal nga sëñ Tuubaa. jërëjëf sëñ Abdoulaye ñu ngi jaajëfalaat bu baax a baax ak di sant bu baax it sëñ Assane ci kàddu yi matale na lool kon foofu nga laaj rek lu jëm ci soññee bu jëm ci liggéey bi noonu ko sëñ Assane waxee rek bu dee ñun moom niñ ci doon doxe maanaam dañ doon dàkk dàkk bëggu sëñ bi daal waaw ba ba ba ba sëñ bi gàttandoo gàttandoo ñu maanaam liggéey yooyu ñu jot liggéey muy euh, ay auto laveuse yoo nga xamante ni moom lañ fa njëkk a yóbbu ci ndimbalul sëñ Assane nga xamante ni jàppandil na ci lu bari tamit ndax fañ ko jënde yooyu yëpp moo doxoon suñu digganteeg moom ba loolu jàllee tamit ñu xoolaat laajit dañ doon liggéey bi moom comme noonu ko sëñ Assane waxee rek moom waa Muxaddamatul Xidma daanaka saa su ne ñu ngi jokkoo ak ñoom daal di leen laaj lu ñu lu ñu gën a bëgg lu gën a lu gën a farata ci ñoom ca waxtu wañ toll rek ba loolu jàllee ñu ni ñu kat fi mu ne nii morgue lu ñu yitteel la ndax benn morgue fa nekkoon defe naa waa Zingoña wala boog mbàkkit mbokk taalibe Italie yi ñoo ko fa defoon waaye bañ ko fa defee diggante bi xaw naa doxi at ba mu xaw a sooxeeg yooyu léeg muy tombe paan yooyu boobaa nag ñu ni ñu fi mu ne nii daal ab morgu moo ñu gën a yitteel ñu dox ci nag euh, wut fii ab morgue boo nga xamante ni fukki place ak juróom quinze place lay def ba yóbbu ko fa ba sale ko ba loolu jàllee tamit ñu laajaat leen lan moo gën a yitteel ci ci ci ci jumaa ji ñu ni kat bëgg nañ euh, benn euh, benn benn auto vidange septique boo nga xamante ni mooy manque maanaam fi nga xamante ni mi foofu la ñuy waaja waajale ñu wàcc liggéey ndox mi da ndox mi bëgguñu mu jaxasoo ak nappe phréatique Touba bi nga xamante ni fosse castrée la te daanaka Touba kenn ku ne xam na ni jàppuma nombre bi waaye lu mat trent wala personne par bis léeg-léeg mën na ko ëpp danañ danañ leen fa waajal ba loolu ba loolu tax na daanaka foos bi saa ne day fees te ñu ci daan waa Muxaddamatul Xidma ñoom seen bopp ñoo daan jël seen xaalisu bopp di ko ci fay ngir ngir ñu koy ŋàcc loolu nag ñu ni ñu loolu moom seen yitte la bañ ñu ko waxee nag ñu taxaw ci tamit suñu borom defal nu taxu tawféex tamit ba oto ba mujj jàppandi ba ñu yóbbul leen ko. ba ginnaaw bi sax am na beneen liggéey bu ñu joxaat boo nga xamante ne xanaa dox bee xaw a yéex rek waaye ñu ngi ciy tàmbalee dox beneen euh, camion camion benn lañ ñuy wutloo boobu it jëm ci liggéey bi rek. ngir ngir seen bagage yi ñuy am ak moo xam mbale la moo xam lu mën a doon rek ñu am camion benn bu leen di dimbali ci ci ci logistique bi ak li ñuy soxla yëpp daal. boobu it xam naa ne liggéey bi danañ ko sumb incha allah jéem cee jéem cee jéem cee dox ndax ñun moom fii niñ ko tënkee woon mooy dañ doon fexe ba màggaltu Touba jot un projet un màggal noonu lañ ko tuddee woon. nga xamante ni màggal Touba jot rek bëggoon nañ bu ñuy dem. yóbbaale yóbbaale dara sérieux ànd kooku waa Muxaddamatul Xidma ci liggéey bu am solo boobu ñuy def ba tax na moom ñun niñ ci doon doxee rek mooy comme liggéey bi moom jumaay sëñ Tubaa moom dara danay melut moom fenn fu ne waaye mën na faa liggéey yaakaar fa sëñ bi waaye jumaa ji moom moom noonu ko sëñ bi waxee woon rek moom mooy mooy mujj ndigal man nañ ne ba tax na noon nañ lañ ko yége saa su ne it moom mbooloo mi ko fiy saytoot moom daanaka moom noonu ko sëñ Muntaxa waxee rek ci fan yi yàlla na ko fa yàlla yàggal te wér ku dem ma dem ku demul ma dem noon lañ ko noonu la ko mbooloo mi defee tamit moom bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu ko sumbee ba gëstu lañ ca war a gëstu lépp moo xam devis bu ñuy def lu ngir ngir camion la wala boog liggéey bu mu mën a doon rek moo xam morgue la wala lu mën a doon bu ñu xësee ni nangam lay jar ñun ñi nekk ci mbooloo mi ba noppi mbooloo mu xaddimatul xidma moomu ñooy wax ni kat daanaka dañ naan nangam lay jar ñu ni nag kenn ku ci ne ci ñun xool lam cay sasoo boppam di ci dox leneen li nag danañ wut ngir kat ngir ngir ngir yërmande ak ndimbal danañ wut ay carte barkeelu yaatal ko ci mbokk taalibe yëpp rek wax leen ni leen képp ku ci bëgg a barkeelu liggéey bi nii ak nii noonu la demee. waaw ba tax na nag wax dëgg yàlla ñi ngi ciy sant sëñ bi moom lañ ci luñ ci sumb daal wax dëgg yàlla yomb na lool wax dëgg yàlla ba ba liggéey ba noppi ba jébbal ko ba tax na kon liñ ciy soññaan mbokk taalibe yëpp rek mooy ñu gën a góorgóorlu te xam ni moom fu ne waaye mën na faa liggéey lu ne waay mën na caa jëf waaye jumaay sëñ Tuubaa ji moom benn liggéey bu ni mel amut ko képp ku ci dàkk sëriñ bi daal da nga ko da ko jam te yàlla defal nañ ci tawféex tamit sëñ Assane junj na ko liggéey bu ñu fa man a mas yóbbu rek moo xam morgue bi la moo xam auto laveuse yi la moo xam camion vidange bi la bu ci ne rek sëñ Muntaxa génn na fa mu nekk ba fekk ko ci biir jumaa ji wala boog ba fekk ko buntu këram bu dee caabi oto la mu jël ko xool ko bu dee auto laveuse yi la fekk na ko ci jumaa ji ba xool ko ñaan ci léemu ko liggéey bi liggéey bi liggéey bi waa Moukhaddamatoul Khidma doog koo jël jëfandikoo ko ba tax na loolu yëpp ab soññee la rawatina jamono jii di jamonoy sëñ Muntaxa mu nekk fi nekkal fi sëñ Touba kon nag loolu yëpp war naa doon ab soññ ci ñun mbokk taalibe bi yëpp rek ñu gën a góorgóorluwaat gën a taxaw te xam ni moom sëriñ bi lépp lépp lépp sëriñ bi dongo yi la war rawatina nag euh, mooy jumaa ji nga xamante ni moom mooy lépp sëriñ bi ndax Touba moom la fa ëpp solo mooy mooy fa sëriñ ba nekk te jumaa ji mooy lépp sëriñ bi boo ko sëñ bi digle kenn ku ne xam na lam ci waxoon si mooy seen jotuk sawara wax ko mbooleem bépp murit rek ñaar fukk ak juróom-ñett yooyee kon nag dañuy loolu lépp day fàttali rek ñor gum ñoroon sëriñ bi te loolee nag day gën a wëy tey jii lay gën a feddaliku tamit waaw ah, ba tax na kon ñi ngi woo mbokk taalibe yëpp rek rawatina ñi nekk ci France ak ñi nekk ci Europe beeg yëpp daal ñi ngi leen di ñi ngi leen di ñi ngi leen soññ di leen xamal ni moom moom moom moom ku dem ma dem ku demul ma dem daal ñun fii noonu lañ koy defee lu ñu ci nekk nag liggéey buñ ci sumb moom danañ ko yaatal ci mbokk taalibe yëpp ci réseaux sociaux yeeg ak fépp fu ñu ko war a yaatal rek ba ñëpp yëg ko xam ni ñu ngi ci liggéey sàngam bu ko defee bu bu bu lépp bu lépp antoo ñu jëbal ko ñu jëbal ko waa Muxaddamatul Xidma ñu ngi sant it bu baax a baax waa Muxaddamatul Xidma ndax wax dëgg yàlla saa su ne ñi ngi ñuy ñi ngi soññaat daal ci liggéey bi Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa moom képp ku lay soññ li ci liggéey bi rek dalaa bëgg a dimbali waaw ba tax na ñu ngi ci jaajëfal sëñ Assane ndax moom du ci sonn du ci tay saa su ne lu lu jumaaje soxla te mu gën a jege fii gën a yombe fii France ndax dëkk yu ne mën naa am Italie am na yu fa gën a jàppandi euh, Espagne am yu fa gën a jàppandi France am yu fi gën a jàppandi waaye moom ñu dimbalee ci fii lu fi gën a jàppandi mu wax ñu ko bu ko defee ñun ñu dox ci sunu kem kàttan ba loolu sotti ñu ñu ñu jébbal ko waa waa Muxaddamatul Xidma waaw kon daal loolu lañ doon jottali ci kàddu rek di santaat bu baax ak di leen jaajëfal yéen it euh, ci seen i taxawaay yëpp rek mm, ngeen di saytoo liggéeyub bi Tuubaa bi nekk ci ci ci ci monde bépp rek ndax fépp la fépp la daj ñu ngi koy teewlu ñu ngi France waaye saa su lu bari ci ay émission duñu ci raw waaw kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal tey ñaan ngeen dajeeg tawféexi sëriñ bi ci seen lépp rek jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Assane kon sa kàddu gu mujj rek ci eh, Moukhaddamatoul Khidma ndax. Euh, coordination bi daal bëggoon naa mm, noonu nga ko waxee rek ci communication mu gën a gànjaru waaye jël jumtukaayu Cheikhul Khadim bii nga xam ne Touba Monde bi la ak rajo Xassida online nga xam ne nun ñi daanaka nun it sëñ Touba dong nga ne fi ba ngir yaatal sa bagage yi mu xadima xadima xam ne yaakaar naa ne buñ ci jotee lu ci bari ci communication moom bu soobee yàlla ni ngeen ko bëggee rek lay amee kon um, yaatal gi daal yéen la war ndax yéen yéen nekk ci bopp yi. waaye yéen moom dañ leen di ñaanal nag. ci dañuy ñaan ci dooley sëriñ bi eh, ni ngeen jógee ngir eh, yëkkati mbirum sëriñ bi eh, lam diggee woon ci jumaa ji rek na leen dal yéen it ku ci feeñ feeñ te yéen ngi koy feeñal yéen ngi koy yaatal bu baax kon seen mbir yëpp yàlla na ko sëriñ bi yéwénal ak jullit yi ak taaliba yëpp liñ ci kàddu gu mujj gi rek ginnaaw buñ jiitalee ñaan gi rek ñaanal ki fi nekkal sëñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool tànd ak wér Euh, di waxit ci tuuru sëñ Afia mi nga xam ne mooy sunu jawriñ di jawriñu daayira bi cantam ak ngërëm ak ñaanam ak cantuk waa daaray kaamil ak mag ña waa daarul maarif euh, sëñ alaaj jaxate sëñ aas moom tam duñ ko fàtte ñoom ñëpp yóbbante nañ cant ak ngërëm ak ñaan euh, kàddu yu mujj yi daal mooy dañoo bëgg daal daayira yëpp rek ñu gën a xamaat daayira muxaddamaatul xidma gën koo xàmmee gën cee jàppaat gën cee dugalaat seen loxo waaw ndax moom communication bi moom euh, siiw na jàll na waaye nag it des na ci wàllu liggéeyin wi loolu moom mënees na koo leeral ndax fii France gi réew yi ko wër yëpp boo dee xool dangay ngay mën a lim ñaari réew daanaka ñoo ciy jàpp fii waaw te ërop dafa yaatu Asie Afrique fépp te buñ nee muxaddamaatul xidma diaspora bi loolu sëñ bi danuy jàpp ne waa diaspora bee def liggéey ba koor gi fi mu toll bu ñu la waxoon diaspora bépp lañ ci joxe bu matee 4 millions ak tey matériel da cee bokk liñ jënd luxe li ak yooyu 40 millions yooyu seexi sëñ Tuubaa yi opérateur économique yi pour yi ah euh, taalibe yi seex yi ñooñu ñoo dajee ci jumaay sëñ Tuubaa ji kenn ku ne seet sa coobare bopp nga indi ko borom jamono jiital ci jëfam lim boobu doo a génn waaw loolu mooy liggéey bi kon ñoo ngi ciy tàllal loxo ñëpp. ndax ñun sëñ yi ñoo ñëw fii France tey jii ci bisu xasaayit bi ñu ne ñoom sëñ Assane Diop xet ma ñëw nañ fi indi nañ fi ab rido ñoo ngi woote ci turu Muxaddamaatul Xidma doxewul noonu dafa jug ci ndigal tegu ci ndigal sëriñ bi dañoo waxoon nañu liggéey bii daa bokk ci dëgg yi sëñ Mamor loolu la ñu waxoon nañu am nañu ne ci caaxaan sax organiser nañ ko ba mu jag ba ña ngi am lañ bëgg kii na day dëggu sëñ Tuubaa goo xam ne du lu ñuy paccax paccaxee nañ ko yëkkati teg ko ci loxol ñi fi nekk di liggéeyal sëñ Touba ñooñe nag it nañ ci takk def ci pas-pas donte dañ koy wutal ay kees keesi barkeelu du mooy keesi coobarewu di ko liggéey ñu di ko takk seet la daayira ba bëgg ak jumaa ji ñu den ci jàppale li tax mu yëkkati ko xam ci loxo yi mu nekk nag moo tax waaye du ay bu ko xoolee segg ko du xam du loxo yu set wicc du ca yëkkati kàddu mbaa mu cay dugg loolu nag lañ fa yéene doxee moo tax ñu bëgg nag daayira sëñ Tuubaa ci diaspora bi yëpp ñu jàppaat ci liggéey bi xam ne bu màggal gi jubsee dañuy am wàccaayu màggal ndax bu ñëwee dañuy dañuy dañuy raxas jumaa ji kaw ak suuf sans ventilateur yi installé waat ko seet lenn loo xam ne du fa fakkasal kenn ba di ko gaañ waaw te ñooñu ñooñu ñooñu ñoom dañoo dëkk ci dëkk bu war a màggal waaye duñ màggal une semaine danañ màggal waaye ci liggéeyu jumaa ji la ñuy màggal ay bis la ñuy def ci jumaa ja bu am na ñoo xam ne fukki fan yi màggal gi duñ doo leen gis seen kër ñii Cheikh Basirou Mbacke yàlla na fi yàggum Cheikh Abdoul Khadar taxaw gu muy taxaw daayira bi ak di leen jàppale ci liggéey bi ba gani sëñ Tuubaa bu ñëwee daayira bi léegi ñoo taxaw ci résidence Cheikhul Khadim ñii nga daaru daaru Marnaan ñii ngi ci résidence Cheikhul Khadim bi ngir li sëñ bi euh, taamu woon ci ñoom rek suñu borom def ko ci ñoom mën a dalal kilifay diine yi ak euh, toppatoo kilifay aada yi ku mën a doon waaw sëñ Ablaye daal suñ xol sedd na guyu ñoo ngi ñaan ci dooley sëñ daal suñu borom ñu faj aaju yëpp sant nañ bu baax na ci télévision bi nga xam ne mooy Touba Monde bi na bokk ci télévision yi sañ Touba yi gën a siw rek yi nga xam ne day liggéey kaanu borom tubaa daal waaw loolu daal noo ngi koy noo ngi noo ngi koy ñaan di di di di wax wax di awaay jële si na daamoo fi xidmati wa ab lahum maaraamu inna li si na saaraho li xidmati fa lahumu dayaar wastal jannati jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf ñu doon dalal sëriñ Assane Muxaddamatul Xidma ak sëriñ Modou Kara fare fii ci France Euh, mbokki jullit mbokki taalibe yi kon loolu mooy jotaay bi nga xam ne doonoon ko amal ñu leen di joxaat euh, daje rek ci yeneen émission fii ci Touba Monde bi TV ñoo ngi àndoon ak sunu cameraman di Serigne Papa Gueye ci réalisation bi rek Serigne Aliou Mbuub jëfusu ak Serigne caam bay Fall jërë ngeen jëf yàlla na yàlla dolli jàmm ci jullit ñi wàcce jamono jullit ñi barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh